asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo teewlu info 2S TV dal leen jàmm ci xibaar lii leen di ay kàddu El Malick Ndiaye gannaaw nag bañ leen tere ñu amal rek seen meeting d'investiture ca terrain ak APES bu Parcelles Assainies niki aljuma gi ñu weesu ci noonee nag moom El Malick am poste boo xam ne rek def na ko di xamle ni ci noonee dañoo jël nag benn dañoo jël benn salle privée nag di city business si VDN bi nag. fas fa amal nak cérémonie officielle ak solennelle waye nak nee na à leur grand surprise nak dañu gis ñi nga xam ne force de l'ordre et de défense yi force de l'ordre et de sécurité yi ay dal ci ñëw ci salle boobee rek évacuer ña nekkoon ci salle ba yëpp te teguñu benn loo xam ne rek mën na firndeel moo waral ñu daal di tere mbir mi nu mel ci noonee nag kii di El Malick Ndiaye di ñaawlu mbir moomee bu baax a baax ba noppi nag daal di xamle ne askanu Sénégal ñëpp nag ñoo si teg seeni i gët waaye tam askanu biti réew ñoom itam teg nañu seen i gët ak ñi di waa conseil constitutionnel ñu ne nag ñoom itamit teg nañu ci seen i bët. ëtt ba noppi nag moom di leen di wax nag ñi nga xam ne ñoom ñooy militants ak sympathisants yi ngir rek ñu déglu leen bu ñu leen ñu dégloo rek waaye itam ñu desandi connecté saa su ne rek di xaar ñu daal di jeexalee nag poste bi nu mel ne candidat Ousmane Sonko sera président en 2024 loole nag la xam ne moom El Malick Ndiaye di leen di jaajëfal bu baax te di leen di wax ngeen wéy di abonné suñu chaîne